population dafa musa baax donc Maroc de ba nga gis ne Marocains yi dañ doon bàyyeekoo ñëw Maroc ñëw fii euh, Sénégal surtout soo demee pla loo ciy gis la plupart du temps ci ñi nga xam ne ñooy ñooy def jënd ak jaay marocain yi ñoo ci yoru ci ci gën a taaru ak yenn yi mmh. même ñoom seen produit yi dañ koy indi te Sénégal yi dañ koy jënd bu baax te nag marocain yi musuñu am xaarma yàlla ak ñoom donc looloo tax ne que diggante bi gën a dëgër di dem rek mmh. képp ku ñëw nga gën a digg dëgëral diggante bi te ensuite Maroc daf di boo xam ne ni euh, fii ci Afrique daanaka bokk na ci pays yoo xam ne ñoo ci gën a am cëslaay ñoo ci gën a am la maanaam mmh. parce que su ñuy wax waxu Maroc ça veut dire ne que en réalité ñun dañoo nekk ci diggante Maroc ak euh, ñi nga xam ne ne moo di Sénégal donc diggante bi dafa ratax lool xam ne ni daanaka président bu ñëw rek day mën a xaritoo ak wala roi bu ñëw day xaritoo ki nga xam ne ne moo di président bu Sénégal. très mu doon am solo Léopold Tamba ñu wax ci leneen soxal xibaar yi dañuy àddu euh, jëm ci euh, bennuk euh, lu jëm ci wàllug variété jën te mu fas yéene wala tàmbalee kenn gisatu ko ñu di ko woowee sol mu mel ni kon acteur yëngatu ci wàllug nap ca Mbuur ñoom ñu ngi ci dut baaraam ak tuuma du ngeen ñu dul ñi nga xam ne daanaka mooy bato yi bari bari ñëw ne fi xuus ci itam ñàkkum ressource halieutique boobee jafe-jafe la nag tax na ñoom amoon nañu sax faf seen yaakaar euh, ci ñi nga xam ne moo di euh, nappkat yi féete ca Soumbédioune ndax xam ngeen ne ñoom dañoo waroon daje ak njiitu réew mi tey surtout que euh, roi du Maroc ca quai de pêche nga xam ne waa Maroc ñoom ñoo ko financé waaye teel itam Alioune Badro Sonko jox na leen kàddu ñu àddu ci jafe-jafe boobu ñu teelu ko nga xamante ne mooy ADEPA ñoom sax ñiy dem njort am na yenn ci ay jën yoo xamante ne boo mooyul feek ay at dootuñ ko gët sol boobu ñu sol lang gis nañu ni doole juñ ko sëf dafa ëpp gis nañu ni ak léegi li nga xam ni mu dayoom ci biir li teeral dafay wàññeeku di gën a wàññeeku sol boobu nga xam ni moo doon dundal doomu aadama yi ci wàllu koppar ci wàllu devise ci wàllu industrie defatu ko Moussa Mbeng ak ay nangoom jàpp conseil présidentiel sur la pêche bi nga xamante ne moom la président de la république Macky Sall goon nappkat yi dafa jot nag jamono ji ngir ñu amal ko ñu koy xaar ba léegi ci conseil présidentiel de la pêche boobu ndaxte mooy jataay boo xam ne nii lën la boo xam ni gën a tey ndaxte fi ñu nekk nii ku la wax ak ku la ko mënut a wax nappum Sénégal dafa sooxee ku la ko wax ak ku la ko mënut wax nappum Sénégal dafa may jafe-jafe ko di ko dunde ba di ko yóbbu bitim réew tey ji sunu marché yi ay jënuñu yar mi ngi ne fi gadd ba pare coow yu bari en tout cas président de la république Macky Sall ñi koy xaar ci alxames gi nappkat yi nag di dundee kaar ni président dina fa jël ay dogal yi am solo ngir suqali napp gi Aly jërëjëf lii beneen kuréel la tuddee seen bopp ànd suqali napp gi di ab organisation bu nga xam ne dafa ëmb ay nappkat li nu bëgg du leen lu dul ak transparence leeraange gu mat sëkk jëm euh, ci nam gi ñuy distribuer euh, wala sax nu ñuy attribuer licence de pêche yi nga xam ne euh, bateau yu mag mag yi lan koy jox te ñoom jàpp nañu ne lu ji njaaga ñoom ñooy njaag naka bu nappkat yi laati gaafee ñoom bokk nanu ci rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci côte Sénégal ca noonu itam ñu ngi doon amal ab réunion risque euh, waaye itam euh, gis ne jëm ci euh, bateau industrie russe bi nga xam ne mi ngi ci waaxu Sénégal itam daan nañ ci joxoñ do baaraam ak tuuma ci état bi ci ñu mën ci àndi ay leeral wala lu ko may na mbir mi dina doon jafe-jafe ndax xamuñu lan moo ne ci ginnaaw boobu lekk bateau russe ci jafe-jafe yooyu yëpp ñuy dund nag ñu ngi sàkku Euh, ñu amal ab assis de pêche waxtaanee napp gi ci mim réew ndax lompoñ na euh, ñu teewlu ci euh, Cheikh Ahmed Tidiane ak Mansour Ndiaye ñu fa teewloon. di ànd suqal gi wéne seen ak mer jëmale ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite wàllu napp gi fii ci suñu organisation boobee lëkkale ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci nappum gaal yi. commission consultative d'attribution de licences daje nañ à notre insu nga xeeguñu ko sax ñun. fan yi nag yëgoon nañ ne am na benn ay nit ñu jogaat seeti ji le ministère de la pêche pour loolu nga xam ne Alioune Ndoye daf si tegoon tànkam pour mu teggi tànkam pour mu signal leen mais assise de la pêche la war a def audit pavillon bi ñu xam ñaata bato ñoo valable yu nekk Sénégal loolu yàgg nañ ko laajte. ñoom responsable yi jiite ànd soxali napp yi dolli nag di métti lu seen i gaalu ci seen i membre yi nga xam ne dañ leen saax saaxee fële ca Ndar. dañu gis ay gaal dugg fa. dana navir ñëw ëkk gaal bu ñu bokkee réew mi ñun ak ñoom pétrole feeñ ci géej gi même gaal boo ko fekkee place bu mel noonu bu xamul comme informé woo ko sensibiliser woo ko nga woo ko waxtaan ak moom jóge fële woo benn navire mu ñëw fekk ay gaal yu bari ser jatara te ku ne xam ni jatara ndar bari di ute lu ñu dunde nga ñëw dugg ci biir gaal yi jaxase ko mbëkk gaal niñ ko defee baaxul nañu li ñu war a def waxtaan ak nit ñi mu leer seen bopp ñoom ñooñee di yëngatu ci nappum gaal gi di pêche artisanale bi ne sax boo sàggunul daañu wàcc ci xàllug mbedd yi wane seen ak mber ngir say fii daal di leen may nopp. Léopold Tamba bokkoon na Sénégal liy suqali ki luy suqali lu koomam napp gi bo bokk na ci sax suqali googu ñi nga xam ne ñoo ciy yëngatu waaye dafa mel ni jafe-jafe ko takk weesu na ko est-ce que assise de la pêche boobu jotul. waaw war naa mun am parce moo secteur boo xam ne ni lu mu doon indi ci maanaam ci koppar Sénégal daanaka dafa bëri lool mais soo xoolee tey jii léegi dafa mel ni dafa am lu ñuy wax la raréfaction des poissons te loolu bu amee du ñun rek kese parce que gis nga ni ñoom ay euh, gabante la ñu yor donc mënuñu woon sori bay dem fu gën a sori ci géej gi donc looloo taxoon dañuy baal dañuy dem mbaal dellu si ba pare mais ba saa suñ mun na ñëw borom gaal yi daanaka day fees dell ak jën mais léegi gis nañ ne que jën gi léegi dafa commencé manqué kii ñu leen di jox yenn euh, yenn yenn licence de pêche waa licence pêche pour ñuy mën a di pêche suñu waax yi mhm. mais dañ ko war a mun a défendre mais c'est vrai que la marine nationale def na ay effort jënd na sax ay bateau pour mun a maanaam mhm. euh, maanaam sécuriser notre zone mais tellement que géeju Ndakaaru Njaay ak feneen ak feneen fii ci Sénégal que dañoo yaatu ba nga xam ne ne pour mun leen circonscrire di à chaque fois di dem xool ndax nit ñi amul ñoo xam ne ne dañoo dugg ñëw sàcc dugg ci suñu waax ba jël lu ñuy jël ba pare génnaat loolu bëri na fi donc ci loolu il faut que ñu taxaw encore seet yan euh, comme ni nga ko waxee rek ñu mën a def benn benn maanaam rencontre bu mag a mag a mag boo xam ne ni ne dinañu mun a weccoo xalaat ak ñi nga xam ne ni ñoo di pêcheurs yi parce que ñoom wax dëgg ak yàlla loolu moo leen doon indil maanaam lu ñuy dundalee woot mi ngoog Léopold Tamba jërëjëf actualité religieuse bi ci la ñuy àddu li ko gën a dominé nag bokk téeméer ak ñeen fukk ak ñetteelu édition bu appel Seydina Limamou Laye al Mahdi euh, nag nag moo nekkoon ñaareelu euh, fan bi ci boobu lekk événement euh, bari ñu ngi leen euh, gis diggante jàmmalaay ak yoof mu mel ni kon ca jàmmalaay googe sax la ki nga xam ne moo di limaamu laay woote woon boobu lekk appel mooy loolu itam ñi nga xam ne jël nañu kàddu ci boobu lekk cérémonie ni ki tey ci suba rawane rawati yor yoor gi dikkaat nañu bu baax a baax ci jàmm gi ak sax gi mu fi war a sax waaye itam jaareel ko ñi fi yeewoo Euh, ngir rek loolee gën a mën a ñoŋ euh, yemook lool sax ak temb bi ñu tànn nan ko bakk yeeku Mohamed Diaw woon nanu fa yoor yooru yi mooy màndargaal dëgg-dëgg appel bu Seydina Limaamu Laay muy amee kanamu xabru ku tedd kii bile yoon imam bu yoof di Mamadou Matar Laay yëkkati jagleel ko askan wi gis nga gàtt gi muy gàtt ndaw ay si suñu réew mi aw ay baaxul de gis nga xam ne ñu ngay dund ay woo fitna jooju doo leen sët nañ bàyyi gàtt bu ay gi nekkul ne ku ñaan jàmm wala ku woote jàmm rek da nga far fii wala faa jàmm ñëpp ko soxla jàmm di du lu ñuy politiquer nañ def très attention ay affaire la yoo xam ne bis bu yàqu woon kenn du ci mucc te defaraat ko dafa jafe muy woote boo xam ne porte di Mamadou Lamine Laye dàbbali na ko. wax rek baax na. wax li am solo mooy yàlla mi xam na xam rek na xam. Cambérène bi dalloo cérémonie d'ouverture bi ak ngor fa nga xam ne fa la lépp tàmbalee ci Baay Laay Yoff di bërëb bi ñuy tëjee appel bi dalloo ay junni junni taalibe yoo xam ne ñëw nañu weesi yor yoru jàmmalaay di bërëb bi nga xam ne fa la Seydina Limaamu Laay teewoon wooteem nga ca 1883 nanga ko bakka yo ko jërëjëf ñuy fàttali ne cérémonie officielle bi dund nañu ko ci euh, ngoon si daan ci dikkaat ak suñu dafa teewaloon ci suñu jotaay xibaar ci ni gën a beneen xew